cadre cadre de aviation civile la que je ngi à l'aéroport je suis euh, de métier donc de mon diplôme ingénieur en génie informatique d'entreprise en 1996 suite j'ai euh, euh, ma bac fini le lycée de la force comme bac E à l'époque d'ailleurs bac E ni ni nous avons dem bac E à l'époque donc j'en faisais partie on était bi bac à peu près 17 à présenter le bac du Sénégal bon ça c'était l'excellence euh, à l'époque en tout cas bi ñu eu un mes bac euh, ba France di de euh, def fa famille ma am sama diplôme liggéey naa ci entreprise yu entreprise yoo xamante ni entreprise du mag Tu ci tu ci ñoom l'a doon comme chef de projet comme responsable informatique responsable de projet euh, ba 2008 2008 euh mané ma jël benen décision décision monter sur ma entreprise France donc suis monté sur ma entreprise euh, malgré crise financière bi amone ci àdduna bi en ah, crise bu métti euh, bo xamante États-Unis le jóge won wàcc France wàcc Afrique ba vraiment dëkk yu de demoon récession à l'époque ma créé sur ma entreprise dans les nouvelles technologies dans la sécurité des données informatiques où je conseille pas mal de gouvernements où euh, man mon filiales ben filiale Angleterre euh, Sénégal Abidjan euh, Conakry et Tchad Je j'ai créé mon entreprise on est arrivé à 2009 2010 où vraiment man que en tant que au Sénégal dama me impliqué wu politique par rapport à à l'époque euh, te ñu que injustice moo fi fi ma engagé wu ci côté euh, en tout cas euh, ci côté terre en 2009 2010 où vraiment nous, ñu ci la en tout cas régime de fi à l'époque nous avons gagné au mois de mars 2012 le 25 mars 2012 précisément de jël décision né damay au Sénégal ma jël sumay sumay affaire sumay business ma jaay ko et puis euh, ma ñëw ma ñëw Sénégal bi ma au Sénégal ci laa intégré aéroport Léopold Sédar Senghor bi ma intégré foofu très rapidement ma ma nekkoon le le directeur du système d'information euh, le directeur commercial le directeur technique et j'étais le conseil spécial du du DG euh, ñu liggéey ci liggéey liggéey ci lu bari et liggéey tamit ci plan bi ñu permettre woon ñu euh, Léopold Sédar le 7 décembre 2017 qui était plan parce que de contrôle. Euh, midi tour de contrôle bi midi 1 ñu tour de contrôle midi 5 avion Ethiopian Airlines ci aéroport euh, expérience la tour euh, ci sa du du en fait c'est-à-dire déménager aéroport ça a expérience bo a vraiment positif les bi ñu demee euh, foofu ma intégré naturellement la même société qui la société qui a def handling euh, ma intégré euh, société qui a bi handling au niveau de de l'aéroport. parce que li ñu yóbbu fait le protocole la boo xamante président de la république dafa ne euh, def dans les règles de l'art mais teg leen en tout cas l'humain au centre ñi nekk fii am liggéey di fi suturlu buñ ko ñàkk ñi nekk fi jël ba lepp lo xamante am nañ ko fi muy sen ancienneté muy sen droit de retraite muy sen sen sen, sen assurance maladie lepp lu nek fi bind leen ko yeen ñep ngeen signé ko avec les partenaires sociaux ngeen yobale lolu ci aéroport bobu noonu malgré que les sociétés boobu société bu bees donc y a eu euh, vraiment lu bari bari bari lo xamanteni ay front yu bari yu ñu ubbi kérok bañuy bañuy bañuy bañuy toxu aéroport yi. bi ñu fofu euh me rejoindre donc 2AS moy ay VDS sans service comme directeur technique bon euh, bon 2AS euh, dafa di société bo xamné dafa regrouper société yu bari yo regroupé na euh, anciennement AHS aviation handling services yo regroupé na 4 SHS Sénégal handling services regroupé aussi parce que aéroport de dafa am ñu ko tabax regroupé ño xamanteni ñom ñi ngi assistance au sol avant ñun ñuy ubi aéroport bi notamment des salariés qui étaient là avec Souma avec biñu biñu biñu ubé fofu donc biñu ubé ubbee le 7 décembre vraiment ci prouesse bo xamanteni ni euh, journaux yi gëna euh xarañ ci affaire aviation wax nañ expérience au Sénégal euh bobu c'était c'était en en 2017 jusqu'à aujourd'hui vraiment euh, l'aéroport a beaucoup de beaucoup de certifications ñu ngi ñu ngi liggéey ak suñu ay partenaires euh, SUMA ak l'IMAC euh, AIBD qui sont partie intégrante Air Sénégal la résine qui sont partie intégrante en fait de l'écosystème. en fait sama sama xalaat ci moom peut-être c'est important wul noonu li li ma li important mooy peut-être liñ ko sas naka lañ ci naka lañ ciy eggee euh, je pense que tey nii euh, boo jëlee AIBD AIBD euh, bi fa bi fa bi fa ancien directeur général le ministre Doudou Ka nekkee dafa am au passage maa ngi koy féliciter ci ci liggéey bi mu def boobu di encourager ci liggéeyam bu bees bi dafa am loo xamante euh, visage bu bees bu mu génnee woon ci aéroport bi mooy leadership leadership bi nga xamante aéroport bi euh, soxla woon na ko très rapidement dafa waxtaan ak euh, plateforme bi ku nekk mu impliqué et à la fin de ça ñu mu créé benn document et avec ses équipes mu dem défendre dans lors d'un conseil présidentiel en tout cas le projet de hub aérien projet hub aérien dafa amoon ñaari pàcc ben pàcc bi moo nekkoon euh, transport aérien ci bopam manam lepp lo xamanteni dafa nek autour de l'aéroport la compagnie etc benen bi nek ci tourisme bi notamment expérience passager expérience passager moy euh buñu jëlé ben touriste fi muy xalaatee euh, ne fan la wara dem vacances Sénégal mën ko capter mu ñëw fa mu ñëw Sénégal ñu duggal ko ñu guider ko won ko won ko fi nga xamanteni fofu la wara xol ba bu démé ba bay xalaataat Sénégal bu génnee Sénégal rek danaan ah man daal fii bëgg naa fi ñëwaat ak samay mbokk loolu mooy expérience patriotique parce que il faut que ku ñëw fii nii booy dem nga am esprit bu esprit bu neex en tout cas ci Sénégal. deuxième deuxième partie, bi mooy lépp luy laal aviation lépp luy laal aviation dafa am ay projets yu bari yoo xamante ni dañ ko vol dañ ko validé woon en conseil présidentiel <coughs> te projet yooyu yëpp c'est en phase de réalisation parce que financement yi bouclé nañ ko moom bu yàgg.

donc li ma dire, c'est que le directeur général bu bu bu je bi li ma ko je a li ko ci ci ma xelal ko parce que parce que ci cadre yi ci la bok je pense que moom euh, bu ñëwé ubbeeku en tout cas ci euh, cadre les les spécialistes de l'aviation qui sont sur place euh, je pense que mën nañ atteindre objectif bi bi nga nous mom lañu président de la République Sassone lors du conseil présidentiel en tout cas il faut juste que mu ubbeeku pour que ñun ñu ak mais euh, won ko yoon bi euh, pour ñu pour ñu dem parce que tay ni euh, madame li nga li nga xamanteni euh mo meuna jafé mo ñu ñu jël temps diko jangal euh lolu bu féké né je pense que profil bi ni ma gisé profilam euh mi ngi joggé dans le domaine maritime domaine maritime ak domaine aérien c'est presque similaire Euh, c'est-à-dire que c'est les yooyu yëpp ay process le yo xamante valable pour le pour les bateaux mais moo valable pour les pour les avions euh, mais am na spécificité yo xamanteni ci avion ci ci aviation rek lañ ko gis mais euh jarul ti jarul ragal ñun on est là-bas ñun ñep on est ci même gal gi lañ euh gal gi terre ñun ñëppay teer gaal gi euh, tàngee ñun ñepay tàngee donc ñun suñu intérêt moy ànd ak en tout cas. Nous euh, nga xamante le euh, président Macky Sall le gouvernement nañ pour pour réussir en tout cas euh, objectif fixé objectif 2024 on devra de toute façon nous présenter suñu bilan pour wan fan lañ jëlee AIBD ak fan lañ ko donc man damay dama sama base politique politique mais aussi au niveau de la diaspora parce que fofu foofu foofu la mbir mi so sottee euh, ba ñuy dem 2012 yombul euh yombul won euh, ci ñun parce que euh, du président Macky Sall mosul mosuñu defal dara ñun ñoo doon génnee suñu xaliss di joggé boobu ma ngi fàttaliku man ma ngi dëkk Bordeaux Bordeaux à peu près 500 kilomètres la mi ngi melni ne fii euh té chaque week-end chaque vendredi dama dañ dan dem dañ daan Paris ak les cadres qui étaient là-bas muy taw muy neige ñu mëna a génn ñu mënul génn. Euh, mais buñ doon ki dañuy def détour ci ay dëkk récupérer ñi mënul dem c'était vraiment vraiment euh, une implication motax même tey j'encourage les jeunes à s'impliquer mais mais s'impliquer de manière responsable parce que euh, bo bo impliqué wul de manière responsable et réfléchie ça lolu moy tax nga fal suba ño xamanteni bo buñ leen buñ leen tegee rek nga rëccu ko bo xolé ni rek nga nga ko donc il faut vraiment que je yi parce que Taini entre 2000 et, et, et, 2000, et 2022, la population sénégalaise a été multipliée par 2,5. Euh, et notamment, euh, les 1,5, c'est presque des jeunes. Nous, tous, nous devons euh, donc, am doole. Donc, doole bobu, il ne faut pas que nous utilisions ko ci ci luñu luñu maîtriser Il faut que nous maîtriser ko parce que maîtrise maîtrise bobu non moy permettre suba ñu ñu mëna fal ñu xamanteni ñi buñu togué di waxtaan ak par exemple président américain yi bu ñu toogee di waxtaan président français di waxtaan ak président turc wala ñeneen ak ñeneen nos partenaires euh, euh, techniques financiers ñu mëna a waxtaan ak ñoom ci bët ak bët parce que euh, école yi ñu génnee que euh, ñu génnee ñom présent yoy euh, ñun école yoy lañu ñu lañu xam ñun ci lañu ñu nekk donc en réalité moo war nañ mën waxtaan d'égal à égal et que suñu population gis ci boppam parce que fi jëm nak bu fekké né loolu amul dina mëna met dina dina metti parce que Sénégal da fay nekk benn pays pétrolier bo xamante ñi ko bëgg dañu bari bo leen xolé président yi yi du loon ñew Afrique yépp ñew nañ Afrique seetaan sét ci Sénégal donc il faut que sénégalais am am gis boobu gis-gis boobu nonou ba nga xamante euh surtout xalé yi ba nga xamante ki ñi fal vraiment dana dana dana mat dana mat kilifa pour euh, pour Sénégal ak niñ ko gissé ci Sénégal ak suñu mag yu tedd yi nga xam ne tëdd nañ Sénégal fi ak ñi ko ñi fi nek tay yalla na leen yalla may gudd fan euh, ñoñu il faut vraiment xalé yi xalat ñi ñi wara andal pour suba.